الله أكبر الله أكبر واشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قدر علينا من الله ربنا أن محمد صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا رب ثبتنا على دينك وزدنا من هداك وارزقنا الاستقامة على طاعتك وتمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك مسلمين مؤمنين محسنين غير مبتدعين ولا مبدلين ولا مرتدين اللهم بيد وجوهنا وثقل موازيننا وزحزحنا عن النار وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رب جنبنا البدع في دينك فإنها تغير القلوب وتبدل الدين وتفرق الكلمة وتشتت شمل المسلمين ويسلط بسببها الظلم على المسلمين وتزيل النعماء وتجلب الشقاء وتسود الوجوه وتخفف الموازن وتخرج المرء من ولاية الرحمن حتى تجعله وليا للشيطان والشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu saxal ñu ci diineem noo ngi ñaan sunu boroom mu dolli lu njub noo ngi ñaan sunu boroom mu wërsëgal ñu ñu nekk ci njub ci topp ko moom yàlla waaye jàpp ci sunna yonentam muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi ñaan yàlla mu saxal ñu ci loolu ba nu dajeeg sunu boroom nuy ñoo xam ne muslimiin ñu ko jébbulul lañ mu'miniin nekk ñu ko gëm muhsiniin nekk ñu rafetal xayra mubtadiin yal na ni yàlla musal ñu dajeeg moom fekk nekk ay soskat nekk ci bidaa yàlla bu nu dajeeg sunu boroom bu nu nekk ñoo xam ne dañoo wëlbati diineem bu nu dajeeg sunu boroom yal na nu yàlla dimbali ba du nekk ñu murtad génn ci lislaam yow sunu boroom yal na nga leeral sunuy kanam bis bu ñuy dajeeg yow sunuy balance bis boo koy peese yal na fees ay tiyaaba yal nag ñu soril safara yal nag ñu dugal aljanna ci sa yërmande yow yàlla ñoo ngi lay ñaan ci sa kattan ak ci sa mën-mën nga soril ñu bidaa ci sa diine ndax fa innaha tugayiru alqulub bidaa day wëlbati ay xol su ngeen gisee doomu aadama yi topp bidaa du lenn lu dul seeni xol la bidaa wëlbati bidaa da lay jële ci diine yóbbu la ci lu dul diine fa innaha tugayiru alqulub wa tubaddilu diin bidaa dafay changer diine gis ngeen tey ni nit ñi di dunde bidaa maanaa diine bi la ñu wëlbati jël leneen lu dul diine def ko diine waaye bidaa yemul ci wëlbati xol yemul ci changer diine waaye watu farriqul kalima bidaa day tàqale kàddu jullit yi ñii dañ naan weex na ñii ne ñuul na ñii ne guddi la ñii ne bëccëg la noonu la jullit yi di tàqalikoo gis ngeen bidaa ni muy tàqalee jullit yi waaye bidaa du yem ci loolu watu sattit samlal muslimin bidaa day néewal mbooloo julit yi doole ndax da leen di daggate daf leen ay pàcc daf leen ay kuréeli kuréel moo tax bidaa baaxul sunu xutba tey mooy xutuurul bidaa mooy danger yi nekk ci bidaa mbokk yi bidaa dafay dindi xéewal bu yàlla defal ay jullit watu zilin naama yàlla day indil ay jullit xéewal jullit yi nekk ci xéewal googu di ci xéewlu buñ ci defee bidaa yàlla dindi xéewal gi daal leen bàyyeeg bidaa bi waaye bidaa bokk na ci ay mbonam ak ay dangeem wa tajlubu shaqa day tax nit ñi texee di ku dund bidaa rek yowmal xiyaam da ngay texee di ci kanamu yàlla bidaa dafa opposé diine yàlla bidaa li mu njëkk a def mooy contre Seyduna Muhammad yonent bi danaan lii la waa bidaa ne lii la nit ñi bàyyi li Muhammad wax def li keneen wax ba tax bidaa bon day tax nit ñi texee di ëllëg waaye du ci yem wa tusawidul wujuh bidaa day ñuulal kanam ak a bëri ci ñiy dund bidaa ñu seen kanam yi ñuul lëndëm kiris lu ko waral parce que bidaa amul leer lu tax amul leer jógewul ci yàlla lu tax amul leer jógewul ci muhammad lu tax amul leer mooy amul barke ay nit la ay xalaat ak ay bëgg-bëgg ak ay pas-pasu doomu aadama moom la doomu aadama yooyu indi moo tax bidaa day ñuulal kanam bokk na ci musiba yi bidaa di def wa tuxaffifu almawazin suñ demee yowm alqiyam waa ji li mu def ci lu baax li muy bari bari bari bari suñ ko tegee ci balance du daanu dafay oyof loolu tax sunu boroom di misaal mbonuk bidaa comme néegu jargoñ mu ne wa inna awxanal buyut la baytil ankabut law kaanu yaalamuun néegu jargoñ mbokk yi lan la mën a téye ndax mën na téye ngelaw ndax mën na téye ndox ndax mën na téye naaj ndax mën na téye sedd loolu mooy bidaa li muy bari bari buñ ko tegee ci blanche yowmal qiyam du bala du daanu moo tax mu ne wa tuxaffifu almawasin bidaa yemul ci loolu wa tuxriju almaru min wilayati arrahman hatta tajcaluhu waliyan lilcheytan daf lay génne nga farag yàlla nga dem farag seytaane dootoo farag yàlla mukk saa yuñ la ne yàlla nee na sax bal da ngay mer ndeysaan allahu akbar waaw maa ngi maa ngi benn son benn waay ci ñuy dund bidaa ak di ko tasaareeg di ko digle nee na moom suy waxtaan jullit day mer ku gëm yàlla day ngay mer ku bëgg muhammad da ngay mer parce que waxul waxul lu baax parce que waxoo lu baax saa yu ñuy waxtaanee bidaa wax na dëgg ku bëgg yàlla day mer ku bëgg yonent day mer parce que bidaa dafa opposé yàlla ak yonent bidaa day tax nit far ak seytaane dootul far ak yàlla borom bi nee na seytaan innama yad'u hizbahu li yakunu min ashaabi sair seytaane day woote parti la yor mbooloo la yor seytaane ñi muy woo fan la leen jëme pour ngeen dugg safara ànd ak moom wéttaliku ayuha nnaas ya ibadallah irdu ma radiyallahu lakum min ad-din mbokk yàlla ngalawaay gërëm leen li leen yàlla indil kom diine gërëm leen loolu li yàlla rëdd na mooy diineem nan ko gërëm nanu doy ngallawaay nanu doylu lu keneen indi fa kunu li rabbikum subhanahu wa taala taa'iin nanu nekk noo xam ne topp seen boroom la ñuy def duñu topp keneen ku dul yàlla waaye wali nicmaihi shakirin ولنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور متبعين صادقين nanu nekk ñoo xam ne xéewalu yàlla yi dañ koy sant fu nu toll nanu nekk ñoo xam ne sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay mbiram daf ñuy doy lépp pour ñu topp ko mbokk yi li tax bidaa amul place ci diine mooy li muhammad sallallahu alayhi wa sallam indi kenn mënu koo def ba mu jeex loo fi dégg benn waaye mu naan man sunnit laa ci ahlu sunna laa bokk li mu jëfe ci sunna yonent bi matagul lu loxo mën a ngëpp li mu bàyyi moo gëri moo ëpp li mu jëfe ci sunna kon naka la ñuy bàyyee yow dafa goo lu yonent bi indi yëpp nga bëgg a bàyyi lu yonent bi indi dem def lu keneen indi te saa yow dundalee lu keneen indi rek mooy rey nga lu yonent bi indi loolu tax bidaa baaxul waaye nag loolu la yàlla wax de foog nit ñi gën a bëgg bidaa ak diine mbokk yi ci mboolem mbir yi yu ndaw ak yu mag li sallallahu alayhi wa sallam indi nanu doy waaw lu keneen indi nañ ko bàyyeeg ay biram fi jamil umur ci mboolem mbiri nag nañ ci nekk ñoo xam ne muttabiin sadiqin nañ nekk ñu dëgg ñu ciy roy yonent yàlla muhammad hatta yahfazu llahu alaykum ni'amahu pour yàlla mën ñu gardeel xéewal yi ñuy dund ci diine fokk ñu topp muhammad ci lépp sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa yusarrif ankum niqmahu wa yazidu ankum min fadlih wa yuamilukum bi ihsanih wa man yuti illaha wa rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما sunu borom nee na pour ma mottali ci yéen samay xéewal pour ngeen am ma jëflanteeg yéen jëflante bu rafet fokk ngeen topp ma man yàlla topp sama yonent ñu topp yàlla ak yonent ban bénéfice la ñuy am yowmal qiyaam bu ñu génnee àdduna ëllëg ana ban taraanga la leen yàlla di fay ñoom ñu toppoon yàlla ak yonent minan nabiyin yonent yi la ñuy dëkkal mbokk yi kan ci yéen moo bëgg a dëkk ak yonent bëgg nañu dëkk ak yonent yi wala bëgguñu ko wallahi bëgg nañ ko ndax koo dëkkal lu mu màgg màgg màgg lu mu rëy ab yonent moo ko ëpp garaat ci yàlla wa siddiqin ñi dëggu woon ci yoonu yàlla ñoom abu bakrin siddiq wa shuhada ñi dee ci yoonu yàlla ñoom hamza ñoom usmaan ñoom ali wa salihin ak ñu baax ña ñoom imaamu malik ahmad shafii ibnu taymiya yàlla mu ne wa xasuna ulaika rafiqa ñooñu de ku ñu doyul ñu nekk sab xarit dootoo am xarit bu baax nee na zalika alfadlu min allah loolu xéewal la bu bàyyeekoo ci yàlla wa kafa billahi alima ayuha alahbab ittabi'u wala tabtadu qad kufiitum mbokk yi nanu topp waaye bu ñu sos sos ci diine lii rek lay indi mooy li nu gis tey nit ñi bàyyi yàllaakub yonent di sonn ci lu dul yàllaakub yonent te li ëpp ci li ñuy sonn du ñu fayee ko ëllëg yowmal qiyaam seydina umar radiyallahu anhu wa ardaah dafa gis benn labbe nekk ci jaamukaay yàllaam di jooy di yuuxu bay jooy omar xool labbe bi daal di jooy gaa yi ne ko omar haza nasraani kaafir kii nasraan la yéeféer la nga xool ko ngay jooy omar mu ne jooyuma lool de ñu ne ko looy jooy mu ne sama xel dafa dem ci benn alqur aaya alquran ñu ne ban aaya la mu ne amilatun naasiba gaa yi ne ko omar lu muy tekki mu ne kii dafa sonn te du fayee ko yowmal qiyaama ak a bëri ci sénégal ñu sonn te duñu fayee ko ak a bëri ci réew mii ay nit yu sonn waaye ëllëg yowmal xiyaam yàlla du leen fay lu tax parce que li ñuy sonn yàlla waxul ñu sonn ci loolu moo tax du yàlla du leen fay kon kuy sonn sonnal ci li la yàlla indil pour nga sonn waaye boo sonn ci leneen ëllëg yowmal xiyaam yàlla da lay wax demal ci ki nga doon liggéeyal nga seet ndax danga fa fekk fay izhabu إلى الذين كنتم تراعونهم أعمالكم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ñi sonn fii te sonn ñu ci farata yàlla ak sunna muhammad ëllëg yàlla da leen di wax dem leen ngeen xool seen jëf yooyu ngeen doon jëf te ngeen ko doon jëfal ñeneen dem leen ngeen xool ndax ñooñu am nañu fay wallahi ñooñu amuñu lu ñu fay ndax ñooñu dañu yaakaar fay ëllëg yowmal qiyaama kon nañu topp bana sos li ñu yàllaa kub yonent indil doy nanu wasluku tariqa alxaq allazi ilayhi hudaytum nanu topp yoonu dëgg yoon wi nga xam ne moom lanu yàlla subhanahu wa taala jubal wa alaykum bisunna wa alaykum bisunnati allati biha fuddiltum jàpp leen sunna bi nga xam ne moo tax yàlla def leen ngeen nekk ngën gi xeet kuntum xayra umma lu ko waral mooy da ngeen a jàpp ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon sunna soosu tax yàlla def ngeen gën kon jàpp leen ci sunna boobu tamassaku biha ngëb leen ko addu alayha bin nawajis matt leen ko ak seeni dëgëj dëgëj mooy bëñ bu mujj dernier bëñ matt leen foofu seen sunna matt ko foofu téye ko ba mu dëgër bu leen bu mu leen nax mbokk yi bu mu leen nax mbooloo yu bari bu mu leen nax mbooloo yu bari bu mu leen nax dëgg nekkul ci mbooloo mu bari su ngeen jàngee aksar yi ëpp ci alquran yépp yàlla defu ci barke wa ma yumin aksaruhum billah illa wa hum mushrikun wa qalilum min ibadiya shak lu bari lu fi ko yàlla wax yépp li ëpp ci alquran yàlla waxu fa lu baax kon lu bari mbooloo yu bari bu mu leen yéem xam ngeen lan moo leen war a yéem mooy nekk ci dëgg ndax ci dëgg laa nekk loolu kese moo la war a yéem wala tastawxisu min qillati saalikin néew wéet bu mu leen sonal ñun de dañoo wéet boolu bu mu la sonal ndax yow yàlla akub yonent ngay wéttali ko ku am yàlla ñàkkul dara ndeysaan sunu benn sëriñ doon na wax ci pulaar so allah dañaama hay dara waasaaka so allah waasaama hay dara dañaaka sen dañi allah haydara en mbasani sen puttini gite ha allah wirtima en kala mo mbawɗen jaggude en punta e koye men ɗum sérigne lolla don wax so ko am yallah ñakko dara ko amul yallah perte nga a komana jappo perte nga waaw kon loolu ñu naan ak wéet ak néew bul ne ñun de dañoo néew sunu mbooloo bariwul déedéet ak a bari sunu mbooloo mooy mbooloo yàlla mooy mbooloo muhammad mooy mbooloo sahaaba ya kon mbooloo mu bari la bu kenn wax ne ñun dañoo wéet ñun ñoo nekk ci yoonu yàlla ak bu yonent jàpp leen ci sunna boobu wax juru dalaal mbokk yi gàddaay leen réer ak fu mu mën a nekk ak ku ko mën a woote gàddaay leen ko gàddaay mooy bu leen fa dem gàddaay leen réer wala taxtarru bi kasarati lhaalikin gis ñu bëri ñuy alku bu mu la yéem gis ñu bëri ñu bëri ñooñu ñëpp fan lañ jëm nar a jëm ëllëg dañoo nar a alku kon loolu bu mu la waar in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun inna rabbaka huwa a'lamu man yudillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin sunu borom nee na ñu bëri ñooñu nga gis in yattabi'una illa dhanna topp ñu ludul ay njort ay njort ñun yaakaar nañ ne mbir mi yaakaar nañ ne fii yaakaar nañ ne lii lee rek lañ yaakaar amul ci kenn ci ñoom ku lay wax ne yàlla nee na yonent bi nee na ay njortu rek njortu kese in yattabiuna illa zann yaakaar naa ne bu ma wàccee 18 kaamil yaakaar naa buñ jàngee 30 kaamil yaakaar naa ne yaaka rek in yattabiuna illa zann wa inhum illa yaxrusuun yàlla nee na nekkuñu lu ñuy làmbatu dañuy làmbatu li ñuy def teguñu ko fen inna rabbaka huwa a'lam man yudillu an sabil yàlla moo la gën a xam yàlla ci mboom la gën a leer wen ñi sànku ci yoonam bi yàlla xam na ko mbokki julit yi ala la yatalaawalanna la yatataawalanna alaykum al amad fa taqsu qulubakum bu mu yàgg mukk ci yéen waxtu yoog weer yeeg fan yeeg at yi bu mu yàgg mukk ba ngeen bàyyi sunna ne da ngeen dem ci bidaa bu ngeen demee rek seen xol yi wow ku dem ci bidaa rek sa xol wow wala yulxirannakum al amal fa inna kullu ma huwa at qarib bu leen nekk ci jaamu yàlla ba naagu bu leen nekk ci sunna ba naagu dee ngi ñëw te lépp luy ñëw dafa jege ibadallah iyakum wa muhdisati al umur fa inna charra al umuri muhdasatuha wa inna kullu muhdasatin bidaa wa kullu bidaatin dalal wa kullu dalal fi nnar aqulu ma tasmaun wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله أيها الناس احذروا البدع موكي نانو مويتو بدع فإنها تسوه الدين بدع دي يق ديني ni ñuy jëlee soow demal léegi nga jënd siwo soow wala paan bi nga jëndee siwo soow nga raxas bërigo bi ba mu set nga jël siwo bi nga sat sotti ko ci biir bërigo bi nga dégg ko ci robinet bi nga ubbi robinet bi nga ni damaa bëgg soow bu bari bi nga sottee paanu soow bi ci bërigo bi nga ubbi robinet bi nga ni damaa bëgg mu fees ma am paan ma am bërigo soow après looy am ku ne xam nga li ngay am dana weex de waaye xam nga ne amoo soow loolu la bidaa mel bidaa day yàq diine kon ihzarul bidaa fa innaha tusawihu diin wa tatmis maalimu sunna bidaa day rey leeraayu sunna wa tuhaddis fitan day indi fitna wa tudillu naas day sànq nit ñi an tariqil janna bidaa day tëj yoon bi war a dem aljanna soo ci jaaree bidaa da koy tëj da lay wàcc yoon wi sikk nekk ci wa tajcaluhum yasiruna fi tariq muntahahu ljahim bidaa daf lay fekk nga nekk ci sirat al mustaqim mu wàcce la nga tegu ci yoon woo xam ne mu ngi lay yóbbu jahim ibadallah bokk na ci musiba yi bidaa di def ba tufarriqu nnaas bidaa day taqale nit ñi waaw ngay gis kër goo xam ne kër gi ñëpp ay jullit lañ waaye bokkuñu pas-pas lu tax bidaa bidaa moo leen tàqale ñii bu ñu xëyee jublu ndeyjoor ñii bu ñu xëyee jublu penku ñii sow ah ñii gànnaar ñii bëj gànnaar ñii bu ñu xëyee takk di naan di sangu di diw waaw ñii bu ñu xëyee woo yàlla kese bidaa day tàqale ay nit wa tufarriqu nnaas wa tajalu ahluha yusirruuna ala alxinsi alazim bidaa day tax nit ñi sawar bëgg caaxaan wala rek wala bidaa da ngay gis lu ngeen def baax na ñëw leen rek lu ngeen def baax na yéen kay ñëw leen ba ñaanal leen rek ku ñaanal fii rek dugg nga aljanna ku teew fii rek dugg nga aljanna ngeen ne loolu yomb na yonent bi amoon mbooloo bi gën ci mbooloo yi te musul wax ku teew fi dugg nga aljanna sallallahu alayhi wa sallam bal sax yonent bi dafa am koo xam ne dafa bëggoon yonent bi lool lool su yonent bi daan dox bu simmee dàll yi rek mu jël yonent bi xool ko ba ci yàgg ne ko mbokk mu ne ah mu ne waxal loo bëgg ma ñaanal la yàlla yàlla defal la ko waxal loo bëgg rek allahu akbar tey suñ ko waxoon fii kenn ci ñun ah kenn kenn ci ñun su ko yonent waxoon waxal loo bëgg ma ñaanal la yàlla d- defal la ko looy wax waxal yàlla mu may ma visa ma bëgg a tukki waxal yàlla mu may ma 4x4 waxal yàlla mu may ma R plus 5 mbirum àdduna la ñuy wax waaye xoola saxaaba boobu bi ko yonent waxee la da ko ne asaluka ya rasulallah murafaqatuka fil janna nde leen rek laa bëgg ni ma ànd ak yow nii ci àdduna nga ñaanal ma yàlla ma ànd ak yow noonu ci biir aljanna yonent na ko waxuma mënuma loolu de waxal leneen loolu moom mënuma ko mënuma laa dugal aljanna waxal leneen waa ji ne yonent man lool kese laa bëgg bëgguma leneen yonent ne ko kon ainni ala nafsik bi kasrati sujud kon de sawaay del julli lu bari yonent lan la wax fatima doomam ya fatimatu bintu muhammadin salini min mali ma shit fa inni la ugni anki min allahi shay ah yonent amoon mbooloo ñépp daan fa teew musul wax ku teew fii rek sa aajo faju na ñun loolu lañ ñuy wax Mhm. bi daa baaxul dafay tàqale jullit yi day tax nit ñi sawar ci caaxaan bàyyi jaamu yàlla da ngay gis koo xam ne du yow fajar mu dem jàkk te bu ñu wootee ci bidaa mu daw fanaani fa waaye yàlla jaral ko mu yeewu fajar dem jàkk loolu bidaa moo koy def yàlla jaralu ko mu fanaan ci jàkk ji xiyaamul layl waaye mën na tëgg fi ay sabar di tëgg di tëgg ba sa- ba fala ba salaatu jot du yëg dara du yëg sax sonn nga bu gaay bëggee arrêté sax mu ne bis na dem waaw allahu akbar bidaa day sawarloo nit ñi ci ay caaxaan rey jaamu yàlla mbokki jullit yi bidaa ngoog day def nit ñi ay mbooloo ak ay kuréel siyaan wa yataamaruuna ahzaaban wa zalika sha'nu almushrikin kama jaa bayaanu zalika fi alqur'ani almubin wa tajcaluhum yufarriquuna diinahum كل حزب بما لديهم فرحون وقد نهى ربكم عن ذلك بقوله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون بدانغوك day def nit ñi ay pàcc pàcc ay këri kër ay mbooloo mbooloo ay groupe yi groupe groupe bu ci nekk ne ñun ñoo gën groupe bu nekk ne ñun ñooy dugg aljanna kenn du dugg aljanna waaw ñenn ñi sax ne sunu kilifa moo yor caabi ji waaw yor caabi aljanna sunu kilifaa ko yor waaw bu ñëwee day ubbi ñu dugg mu tëj kenn du dugg te ngeen ñoo bàyyi ñu dugg aljanna du fees de nañ bàyyi nit ñi ñu dugg ak a ñëw wuuteeg Seydina Muhammad moom mu ñëw bëgg ñépp dugg bal bu nit ñi sonnee sax ba sonn ba sonn ñu ne dem leen ci Muhammad bu ñëwee li muy njëkk a def rek mooy sujjóot ci kanamu borom bi borom bi ne ko yaa Muhammad tey julli amul si siggil irfa raasaka yëkkatil sa bopp irfa raasaka yaa Muhammad wasal tu'ta wasfa tusaffa laajal ñu jox la laajal rek ñu jox la waxul Ali waxul Fatima waxul Khadija waxul Umu Kalsum waxul Zeynab waxul Bilal waxul Aboubacar dafa ne ummati yàlla sama xeet laa bëgg ñu dugg aljanna allahu akbar ummati la wax munoon na ne ana sama waa kër fu ngeen nekk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeet kon nañu mel ne Muhammad lu tax nag du ñu mun a mel ni moom mooy moom la ñuy concurrence al Sénégal yi ci ëpp yonent yàlla Muhammad la ñuy concurrence al borom bi nee nañu bu leen mel ne bokkaalekat yi ñi nga xam ne dañoo tàqalikoo ci seen diine ñu nekk ay koréeli kër koréel ak ay mbooloo mbooloo mbooloo mu ci nekk la nga nekk loolu nga wax ne moo gën ayuhal muslimun ma min bidaa tuhdas illa wa yumitu nnaas min assunna min assunan saa yu ñu dundalee benn bidaa benn bidaa soo ko wootee ba nit ñi di ko def re yëgal ne rey nga téeméeri sunna waaw waaw benn bidaa rek bu ñu dundal mbooloo mi yëpp di ko def xoolal rey nañ téeméeri sunna suñ doon joxe misaal buñ jul buñ sëlmalee julli bu imam ne asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum lan la yonent bi wax wax leen astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahuma anta assalaam wa minka assalaam wa tabarakta ya zal jalali wal ikram loolu la ñu wax te buñ ne assalaama nga gis gars yi commencé dessiner ci basang yi waaw ñii di joxoñ baaraami ndeyjoor ak càmmoñ ñii di fóon waaw di fóon loolu ñëpp fu ñu ko jëlee xoola sunna bi ñu rey au lieu ñu def li yonent bi wax déedéet loolu moo lay won ne bidaa baaxul saa ñu dundalee bidaa ay téeméeri téeméeri sunna lañ rey xoolal yonent bi li mu wax sooy génn sa buntu kër waxal bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwata illa billah gars yi bu ñu yeewoo fajar lu ñuy def ay raakool la ñuy takk ci robinet yi di roose buntu kër yi dañuy roose buntu kër gi roose buntu néeg yi roose oto bi roose taabal bi ngay jaayee roose buntu bitig yi woppee ndiyam dam yuppatone damol rubi demukaji bitigaji ɗum wona sunna sunna nelaɗo wi bisimillah tawakkaltu ala llah la hawla wala quwata illa billah gennal soko defe malaka yi ne la kufiita wa hudid allahu akbar xoolal malaka yi ñoo lay koy wax kufiita wa hudid waa léegi nga jël ndox di sotti lan nga bëgg ci ndox boobu xam ngeen ne ndox mayewul jàmm yàlla mooy borom ndox kon amul benn bidaa bu ñu dundal lu dul rey nañ ay sunna mislaha yu mel ne moom yu dul jeex ndax bidaa bon wala yuhdisu rajulun bidaa illa waqad taraka min sunna saa yu nit dundalee bidaa rek soo demee nga dundali guddi gi ci fecc rey nga xiyaamul layli d'accord soo demee dundal guddi gi ci fecc rey nga xiyaamul layli fi nga waroon taxaw naafila jàng alquran def ay azkar rey nga loolu saa yoo jàngee leneen wala nga liir leneen rey nga jàng alquran saa wala wirdu bidaa yi wirdu bidaa ak julli bidaa yi du ngeen ko da ngeen gis du jeex waaw benn waaye wax na ma barki démb man damay wirdu yaa sam sa sa sa xaw tur boobu mënu ma ko wax ma ne ko loolu de yow lee nga dof loolu turu jinne la bu yow nga bàyyi ko waaw yaa allah la ñuy wird yaa rahman yaa ra mas ngeen gis ci sahaaba yonent ku ñu ne dafa wird ba dof est ce que jàng ngeen ci sunna yonent ci ci taarixu sahaaba yi yonent amoon na cent vingt quatre mille sahaaba cent vingt quatre mille lañ ndax jàng ngeen ci kenn ñu ne ku dof la moom dafa wird ba dof déedéet parce que li yonent indi kenn du dof du dof loo nit astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwata illa billah du dof loo nit waaw waaye yaa samsasatatun yaa xarqarquratun yaa dabararatun yooyu ku ko wirdi di nga dof te loolu la nit ñi di def dañ naan la defal loolu sa aajo dina faju ngay jël fekk turu jinne la kon bidaa baaxul saa yu nit dundalee bidaa rey na sunna loolu na leer ci ñun musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo men mouhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hutba men hannde wonno musibaji wonde e e bida en wi neɗɗo sa kala nde annduɗa o wuurni bida o wari hen o wari toon sunnaji ɗi ngannduɗa hay goto annda no foti kala nde ƴettuɗa kurus ma wiɗa aɗa wirda inde nde ganduɗa ala e alqur'an e sunna a wari a wari diine kala nde yaaɗa nootiɗa ɗeɗo noddaali ɗi ganduɗa hande yimɓe nan nodda a yimɓe nan doga ina fayi ɗum ɗon a yiyat jahowoyi ɗum ɗon te o julta jamma a yiyat baalɗo ina honga buubaji gila futuro ha weeta on holko wuurni bida holko wari qiyamul leyli qiyamul leyli ko sunna tinnoɗen kaaddi hattan men saloɗen kala to neɗɗo noddi en te wona alqur'an e sunna hoto notoɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi kala ko noddoɗon caggalam ina fewna ina yotna ha wayno diina hoto notoɗe gande ɗum ɗon koko fuɗɗa kala ko fuɗɗa koko hesɗi koko rendina kala ko rendina caggalam nodda hen yimɓe ɗum ko jayga fayi kala gurɗo yibiɗa sa maayi hen ko jango jayga paɗa ɗum anden ɗum en wi seydina oumar radiallahu anhu o wirtima hefeere goto ina woni e église mum omar nde o yimo omar koko woyi ɓe wi seydina omar holko woyata o wi oɗo neɗɗo oɗo jiyaɗo allah komi jurmiɗomo ɓe mbimo holko waɗi o wi ko tampuɗo kono janggo allah yoɓatamo on jii hande yimɓeɓe no wawi tampude eɓe doga jamma e ñalawma e wurnude ko allah wiyani yo wurne eɓe rewa ko anduɗa allah wiyani yo rewe ɓe tampa hen tampa ɓe tampa ɓe tampa janggo hay goto yoɓataɓe allah wiya ɓe jeehe eɓe liggontono ɗon ɓe ɓen ɓe tampantuno ɗon ƴeewe so ɓen ina jogii jobdi hannde ɓe tawata toon haydara tinnoɗen e laawol allah tinnoɗon e wuurde sunna nelaaɗo kala ko wiyeɗa ɗum ko allah yamiri a taway ɗum nelaɗo ina holliri holno waɗirte anda ɗum woni diine kala ko tawɗa allah wi waɗe a taway nelaɗo holliri oɗon alhaali holno waɗirte kono kala ko annduɗa ɓe mbi ɗum ɗo koko waɗete wiya holto allah yamiri ɓe wiya ala ala windaka wiya holno nelaɗo waɗiri ɓe wiya windaka sa liggima a dañta hen haydara اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله